من الشيطان الرجيم والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها أخذ الألواح مسقدها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما la daan wax rek moom lañuy wax dëkk bii di Njóosi ah, ku ko xam ak ku ko xamul ku dëkk senegal gune am nga lu la booleeg Njóosi ci askan bon nag bu lii xewee ñépp mopp lii sa ñëw war nañ leen sant war nañ leen a gërëm war nañ leen a balu it ci coono yi waaye lépp yàlla na diig ci ngërëmu yàlla lañ ci dolli daal mooy ci wàllu lii nga xam ne ci lañu nekk muy lii ñu tiim muy baas bii nga xam ne fa tabaarakallaahu daanañ fi gàmmo waaye wax dëgg yàlla baas bii ñu am daawuñu ko am ñi loo ñi nga xam ne nag ñoo sabab ba ñu am baas bii am place yii ñi ngi leen di sant di leen gërëm dina la ñaanal yàlla lépp loo xam ne seen bëgg-bëgg la lu naqariwul yàlla yàlla na ko yàlla jàpp. moo ngi nuyu bokk yépp di jiital ci nuyoo bi sunu njaboot gi nga xam ne ñu nekk fii ci Ndiossi. sëriñ Badde Seck jiite leen waaye nu judi ci teg sëriñ Omar sekk mi nga xam ne bu nu teew see fii yàlla ak moom la moo nu koy wax waxtu woon daje bu nekk dama ko fàttali ba bu yàggule ci mujj ma ne ko insha allahu danaa ñëw su ko yàlla dogalee yàlla dogal na kon ñu ngi koy sant ci loolu bu baax di santit kilifa yi nga xam ne ñoom fekk nañ leen fi muy Serigne Cheikh Jorel mbakke di sama rak mbaa sama doom sax kay mba sama rak di sama xarit di sama wëllëre fa tabaarakallaahu te moom it muy ko am taxawaay ci biir jolof yépp fa tabaarakallaahu fu ñuy defee lu baax boo demee danga ko fu fekk kon ñu ngi koy gërëm ci loolu di ko ci sant di ko soññ bu baax itam mu wóor ko ne fu mu nekk rek noonu la fa nekkal ndax dana amee xew-xew yuy xew nga bëgg a ñëw te doo ko man waaye bu la wóoree ne sëriñ Cheikh nga fa rek moom doy la sëkk fa tabaarakallaahu kon yàlla na ko yàlla fayal di sant kilifa yi nu fi fekk itam mooy rabita madarisul quran seen njiit nekk fi sëriñ Cheikh Lo ak sëriñ xari euh, jaxate xaadi jaxate ñu ngi leen di leen xamal ne dara nekku fi lu dul lislaam rek ak suñ kilifay lislaam yi yi nga xam ne ñoonuy suñu jawrin ci lislaam di suñu wasila muy cheikhul xadim radiallahu anhu di alhaaji malik si ak ñamel ne ñoom yépp ndax ñoom day fu ñu nekk fu fi nit nekk mel na ne ci ñoom nga jokkoo mu jokk ci ñoom jokk ci salafu saalixi ba ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba ci sunu borom tabaraka wa te ñoom fa tabarakallahu seenu doxin rafetoon lool waaye fii si ci si day cohabitation bi fi am ci diggante tariixa yi rafetlu nañ ko bu baax ñëpp nekk benn ñëpp bëggante ñëpp bokk benn bés fa tabarakallahu di ci yëngu di ci jaay seen di ci def seen doole di ci def seen alal fa tabarakallahu loolu rafetlu nañ ko te lislaam rafetlu na ko waaye kilifa diine yépp a ko rafetlu fa tabarakallahu ñu bëgg rek yépp fuñ fi mën a nekk ñu mel noonu ndax seexul xadiim day radiyallahu ak alhaji malik si ñoo bokk mel na maam fa tabarakallahu kon mënuñoo tàqali koo benn yoon li ñu woote ñoo ko bokkale fa tabarakallahu bokk genn kaa bokk benn xibla bokk benn bëgg-bëgg kon fa tabarakallahu fu fi waaye nekk na jàpp ca loolu wa kullu wirdin yuridul murida li xadratillahi walan yaayida sawaawun intama ila al jaylaani aw intama li ahmadi tiyaani aw li siwaahuma min al aqtaabi is kulluhum qatan ala sawaabi képp koo xam ne kii jël nga benn werd di ko jëfandikoo ba mu mën a doon la nga ci kay sa kilifa booy boo boo sàkkoo loola te am gëstoo na nga ko war a sàkkoo da ko am na nga ko war a amee ndax ñoom ñëpp ñu ngi ci ci lu dëggu lu wér la nekk te wërd yëpp benn la rek boo demoon ci wërdul maquus da nga ca fekk salaatu ala nabi allahuma salli ala sayyidina muhammadin alfaatihi li ma uxliqa wal xaatimi li ma sabaqa naasirul xaq bi xaq ba mu jeex ñu du ko def téeméer yoon suba ak ngoon te loolu rek la tiijaan yey def loolu rek la xaadir yey def loolu la ñu baax ñëpp di def kon fa tabaarakallaahu ñëpp benn lañu nañ góorgóorlu te ànd te jàppante te bëggante te taxawul islaam te aar nag fa tabaarakallaahu toll nañ ci jamono yoo xam ne lislaam tumuranke na lool tool nañ ci jamono yoo xam ne lislaam bari na ay attaquement yu ko jóge fu nekk ci fànn gu ne ak ci wàll gu nekk waaye li wér ba wér day mooy lu gën a dëggu li nu nekkoon kenn du ko gis fenn ci àdduna alaaji Omar sa mbokk yi nee nañu sant noonu yàlla sant yonent bi di la gërëm di la ñaanal yàlla li nga nekk yàlla na yàgg lool di la ñaanal yàlla barke nekk ci li ngay def lépp itam di la xamal ne njoosi ñi nga xam ne ñoo fi bokk nekk muy cekkeen ñoo ñëpp sant nañ muy càmbeen joxe nañ seen cant wàcceen nañ seen cant waa ciise joxe nañu seen cant ak seen gërëm waa caaxo waa caameen waa Njaayeen ñooñu ñoo nekk ci biir dëkk bi ñëpp ñëpp gis nañ jëf ji nga jëf ak bëgg gi nga xam ne moo nga bëgg njoosi te ñoom amuñu lu dul njoosi bu ñu ko amul lu dul njoosi nag ku leen ko bëggalee su lu mel nii amee danañu beesal seen ngërëm ak seen jot ci ak seen ñaan ñu ngi nee ñaanal yàlla yàlla na sa taxawaay dëgër kontaan nag nañ nag bu baax ci mbooloo bi ñu wër attente bii nga xam ne dëgg naa suñu bokki lumbal yaa ngi war a far di ko yóoru si sax di dellu dégg dégg naa léeg-léeg ñu war a fas ñëw fi xool xool ko dellu waaye ne leen tànt rek leen balu xaq leen balaq di ñaan suñu borom boole ñu baal di santaat suñu boroom bu baax ci tawféex gi mu ñu tawféexale ñu teewaat jataay bi di ko ñaan it mu tawféexal ñu ba ñu teewee ko déwén ci gën jaarafeti anam di yëkkati ak cant ci turu al ittihaad al wataniya li jamhiyatil madaris al quraniya fédération nationale d'association d'école coranique di Sénégal ci turu comité directeur bi ko jiite te seriñ Moustapha Lo mi ko jiite nekk nii ñu ànd ànd ak Serigne Ousmane Ndiaye ci secrétariat bi ak Serigne Ndiaga Mbaye ak mbokk yi nga xam ne ñoom lañ ci àndal yépp di nuyu bu baax eh, kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci jataay bi tàmbalee ko ci Serif ak seriñ Cheikh Jorel ak mag ñi fi teew ñëpp te ràññeewuñu leen suñu leen ràññeewoon kenn ku nekk ñu tudd ko ak darajaam ji mu am waaye kenn ku nekk sa wàccukaay jox nañ la di sant suñu mbokk suñu wëllëre suñu xarit alxaaji Umar Seck di kenn tey jii ci daara ci senegal di borom taxawaay boo xam ne xam naa ne xam ngeen ko ba doyloo ko waaye bettuñu ñun ñii ko xam te ànd ak moom ci daara suñu dikkee ba fii mu dëkk dégg li sëriñ bi wax léegi lim mag ñépp ne ko nee nañ yow a ñun ñii waa daara dey nee nañ ko yow alaaji Umar yàlla gën laa dëgëral yal na yàlla yokk sa taxawaay dolli la kàtt nag tawfiix ndax xam naa ne yan bi moom dootu wayef wala boog dootu tuuti yàlla nag na ko wayefal kon ñuy seede ci turu yooyu ñu tudd ci turu daara ci Sénégal di leen seedeel ab taxawaayam ak njàmbaaram pëstéefam di wax sax ne moom waxtu wu nekk day def tadaiya mooy dafa mel ne kuy sacrifier boppam ngir na daara jëm ci kanam alaaji umar itte ju muy dox ba itte yi alquran dab ko mu soppi loola jëme ko ca mu soppi loola jëme ko ca su doon lijjanti dara ba gis ca loo xam ne mën naa jariñ tey jii alquran ak njabootuk alquran day mel na looloo ko taxoon a jóg loolu nag dafa ñuy delloo ci xadis yonente bi sallallahu bi muy wax ne la yasalanna ahadukum illa al qur'ana fa in kaana yuxibuhu wa yujibu fa huwa yuxibu llaha wa wa in kaana yubqiduhu fa huwa muy wax ne bu kenn kuy laaj sa bopp laaj ko alxuraan loolu mooy lan mooy soo bëggee xam foo toll ci sa borom foo toll ci lu baax xoolal loola alquran jaral alquran mooy euh, melokaanu suñu borom wu nekk ci kaw suuf lu ne ci kaw suuf lu dul alquran mbindeef la alquran mooy melokaanu suñu borom ci kaw suuf di loo xam ne ci la dee si natte ci alquran ci la dee si natte ci la Sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu waxoon ne bihi uhaadi wa bihi uwaali bihi uhaadi wa bihi uwaali nee na ci alquran ci lay jàppeeb xarit ci lay ameeb noonu moom alxuraan moom la yéen salaay sallama ne woon nit ku nekk ku xam boppam na mu def alxuraan su la alxuraan jaralee bu sa itte taxawee ittey alxuraan taxaw nga bàyyi fa sa ci ittey alxuraan soo yoree benn soxla ko soxla nga jox ko ko santal yàlla te xam ne bëgg yàlla ku bëgg yonent bi nga alaaji Omar ci ñooñu la bokk yàlla ci yàlla saxal ci ñun ñëpp loolu nekk loo xam ne lu am solo la lu ñu bëgg a seede fii ci biir mbooloo mi it mu taxaw ca taxawaay bu rëy ba ñu dénk ko alaqa xaarijiya wa saraka muy relation extérieure ak partenariat mu matale ko sëkk waxtu wu nekk muy dox di jokkale di xëcc lépp lu mu xam ne njariñal alquran a ci ba tax kon loolu ñu ciy sant bu baax di ci soññaatit jullit yépp nag di soññaat jullit yépp ci ñu gën a bàyyi xel ci alquran moomu ne mooy téere bi ñu suñu boroom booleel mu war ñoo wax fu ñuy teg suñu tànk kon waxtu wu nekk ñu war koo gën a fonk gën koo bàyyi xel fonk alxuraan ak bàyyi ko xel nag mi ngi tàmbalee ci njaboot gi ñu yàlla dénk ñu jël leen yóbbu ci daara yi te taxaw leen bañ man faa sax loolu moo ci ciitu njaboot gi ñu yàlla jox nañ ci wóolu yàlla wóolu ci yàlla mooy nangu leen a jàngal téere borom bi te xalaati jamono bañ ñoo yóbbaale bari na ñoo xam ne jàpp nañu ne suñ jëlee doom yóbbu ko ca daara ja du tekki subhanallah xanaa xamuñu ne alxuraan waxi suñu borooma barab bii defe naa ne moom seede la ci suuf si yàgg naa man di alxuraan bari na këri diine yoo xam ne seen cosaan fii la kon loolu it fii ak li ko wër daala takkaat riiraat njaboot yépp ñu yóbbu leen ci daara yi te taxawu leen te bañ a déglu waxi yàqkat yi laaj na ko bu baax a baax lu jafe la nag lu jafe la ndax jàpp gi ñu ci war a jàpp ak taxawu bi ñu ko war a taxawu néew na lool dëgg la bu dee état am na yëngatu ciy def waaye lu néew a néew a néew la ba nga xam ne bi nis ba soo ko doon xayma daanaka boo nee état deful ci daara dara da ngay defe ne wax nga dëgg ak donte waxtu wi ñu nekk yëg nañ ne PAMOT a ngi fii di programme d'appui à la modernisation des daara ñu di ko lim di wax ne fukki daara ak juróom-benn fukki daara ak ñaar waaye loolu lu néew la te nag lu ngeen ci mën a dégg tamit dëgg PAMOT moomu paquet daanaka moo fi ay programme yu état di tudd yépp xaalisu bitim réew la waaye liñ jëgaanee ci kër ci li dëkk ci dëkk ci kër gi moom daara amagu ci wàll loolu monsieur le sous-préfet ak yéen administration bi fi nekk budget national bi bëgg nañ daara am ci wàllam nit ku dëkk ci kër kenn du ko féetale ab yekk nit ku dëkk ci kër kenn du ko féetale ab yekk 10 milliards yi yekkub Arabie Saoudite sëñ Moustapha Lo mi moo ko xaaraan yi ministre bi day ñëw mu dégg ko Euh, wala délégation day ñëw mu dëkk ko wax ministre bi ne ko dañ faa bëgg a ñëw mu ne ko foofu waxtaanuñ fi lu jëm ci daara mu ne ko waaye bàyyi ñu nekk ca salle ba rek ñu dem dugg ca salle ba ñu def liste de présence ñu bindu délégation bi jógee Saoudia banque islamique noppi laaj ñii ñum doon ñu ne ko waa daara dañoo bëgg ku leen jàppale mu ne baax na bañ demee lañ tontu loolu mooy 10 milliards yi daaraa ko dox moo ko yelwaan ci 32 daara lañ ko war a woon état nee na tungaañ dagg ci 64 euh, daara bokk bu jëkk 30 35 daara la woon jamono boobu 35 daara la léegi état soppi na ko ba def ko 64 daara 32 yu mag 32 yu ndaw faf 32 yu mag yi la féetewoo moom kat léegi yekk bi ndekketewoo dañoo defoon ne daara la ko yekkal waaye far na ko séddoo ak ñoom te daa teggi la ca kaw bitse bi daara yi am nañ ci wàll kon loolu nañ ko bàyyi xel dëgg la nag daara yi yaakaaruñ ko yaakaaruñ ko mooy jëluñu seen mbir teg ko ci suñ ci jotee jàngale suñ jot duñ jàngale ñun daara neex boole wuñu ak moom naqari du tax ñu ba ko suñu bakkan lañ ci teg dañu fekkoon suñuy maam ñi di ko jàngale ñu donn ko suñ borom boole moom ci lañ fas yéenee dund dee ci dekk ci insha allahu taala waaye nag jaadu na lool bu Sénégal bu amee ay doomam bitse bi ñu di ko jëlee ci ñëpp ñëpp ñëpp ci impôt direct ak indirect ku sol mbaxana fay impôt ku yoru këyit fay lempo ku yor big fay lempo micro sax lempo lépp lempo te jullit yépp di ko fay suñ noppee ñeene français lañ bëgg a jàng ñu yëkkati ca jox leen ñeene alxuraan lañ bëgg a ñu ne leen ñu dem leen fële wax dëgg yàlla insistance boobu yàgg na nañ ko soppi monsieur le sous-préfet loolu yóbbante nañ la ko na seeni rapport dem suñ daara yi tey yii ëpp ñu xam-xam yu jëkk ya waaye li xew xam nañ ko tey danañ koy wax te am na loo xam ne nag neexul di dégg ku ko wax dañuy defee da ngaa bëgg a xamal ci xajamal ab jataay fekk nit su waxee loo xam ne réalité la soo ko waxee ci jataay mu xajam ka ko def nag war naa bàyyi xel ki def lu xajamal ak ki wax lu xajamal ku ci tane ki ko defaraw kon bu ñu sañoon suñ dikkee fii dañ fiy fekk lu état def ci daara ñu mën caa teg loxo sant ko man des malheureusement nag daanaka gisaguñ ko Euh, kon loolu ñu ngi ciy bàyyi lu xel bu baax a baax waaye jullit yi nag état def na loxoom ci daara defu ko ci ak lu mën a doon yéen jël leen seen doom yi yóbbu ci daara te la ngeen man ngeen def ko ca ndax ëllëg seen borom dana leen ko laaj qu anfusakum wa ahlikum naaran loolu mënut a amee ci lu dul jàngal leen ak yar leen jàngal leen ak yar leen jamono jii ñu toll nag yar tuumuranke na ci loolu tuumuranke na ci loolu te lu fi baax yara ko indi woon yar moomu nag ci la ñuy jeexale waxtu wii ñu toll nii ministre de la justice am na projet de loi boo xam ne mook ay experts am bind nañ ko ba def exposé de motif ba defal ko préface ba yóbbu ko ci cabinet wu premier ministre mu war a dem assemblée wax dëgg yàlla projet de loi euh, muy projet de loi portant code de l'enfant moom ab yar képp la fiy jëlee. yar ab yar képp la fi jële loolu nañ ci bàyyi loo xel état bi xam ne fu ñu ko mën a xalaatee fu ñu ko mën a jële xalaat ya nekk ci biir gis nañ ko ba mu jeex waaye bu lislaam jëmee penku moom sowwu la jëm bañ nañ ko ba ministre bi ñu ko joxee de ko préfacé ko daf ne biñ ma ko joxee sama xel dafa dem ci benn doxalin bu nekk bels ma jàppoon ne ministre du Sénégal su ñuy wutal sénégalais yi ay loi day xool li yàlla wax wala yonent bi wax wala Sëriñ Tuubaa wax wala Alxaaji Malik wax ko wala mag ñu baax ñu wax ko waaye du fi jéggi ñëpp dem ba bel su mu di fa jële jur kenn xamut na ko ñëpp fexe ba am yër ko man li ma xamagun ci ay luwaa yu nekk ci Sénégal projet de loi bii laa gis ni moo ci yées moo ci gën a mat a tiital na ngeen ko bàyyi xel bu baax a baax tey presque pare na pour dem assemblée am na sax député yi yore loolu ci assemblée bi commission boobu am na ñaari organisation société civile yoo xam ne ñi ngi ànd def benn pétition pour am ay signature pour wax ne dañu bëgg a appuyer loolu pour bis bu dikkee assemblée ñu mën koo dëgëral kon jullit yi tamit nañ yëg loolu te bàyyi ko xel bis bi di ñaan yàlla mu bañ a am su fekkee ay député yi jataay bi nañ ko bàyyi xel xam ne jullit yi lañ fa wuutu même buñ nekkul jataay bi jullit député yi ci tund nañ xam ne tund wi tund lislaam la nit ñi nit yi diine lañu du ñuy bels du ñuy français du ñuy leneen ay jullit lañu ay sénégalais lañu ay africain lañu te loolu àndut ak suñuy aada àndut ak suñu diine yàlla na yàlla saxal ñu ci suñu di suñu diine def ñu dëgg-dëgg ay jullit ñu ngi santaat bu baax a baax Alaaji Umar euh, sa taxawaay di la ñaanal bu baax suñu borom gën laa kàttanal gën laa jubale it ak say bokk ndax suñ ñëwoon fii aw yoon te fekkuñu nga déggoog say bokk nam war a mel kon bu ëllëgee mën nañoo bañ ñëwaat waaye wii insha allahu dañuy ñëwaat te ku ñu am ko indi yàlla yàlla saxal loolu wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu xam naa dinañ jéggalu di nuyu kenn ku ne ci sa tur ak di nuyoo nuyoo islaam muy taxiyatan min indillah asalaamaaleykum wa rahmatullah mooy jàmm ak xéewal ak yërmande yal na wàcc mboolem koronu tant yal na wàcc ci mboolem koo xamee ne ab julit la loolu la asalaamualeykum wa rahmatullah loolu lay mooy nuyu islaam mooy nuyoo waa aljanna ca biir aljanna xam nga suñ ñàkk jàmm ci is ci àddina xam nga lu ko waral dañoo nuyoowul dañu war a nuyooy asalaamualeykum islam ne noonu la ñuy nuyoo sooy delloo nuyoo nga ne wa aleykum salaam la ca gën nag wa rahmatullahi wa barakaatuhu wala waa ji ne la assalaamu aleykum nga ne ko assalaamu aleykum loolu mën a nekk waaye salaam soo demee ci téere buñ naan maani ñetti matière la ca bayaan maani badia maani moo lay waxal fasahatul kalaamu tibqu muqtadal xaal nee na wax bala ñu koy wax mu nekk lu fasaha il faut mu dëppoog muqtadal xaal muqtadal xaal mooy lan fekkee jataay bi dafa laaj gàttal nee na gàttalal kon su fekkee da ngaa guddal nee na bu boobaa yow arab yi ne yow fasaha woo su fekkee bi dafa laaj guddal nga gàttal nee na bu boobaa du noonu ñun nag soobee yàlla yonent bi kaddu yi du yàgg ndax jataay bi xat na te ñu yoree poti ndox àddina la ñuy bëgg fàtte alaxira yuhibbuna dunya wa yansawna alaxira dañuy fàtte alaxira de ñaareel ba nee na wa yuhibbuna almaala wa yansawna alxisaab nee na dañuy bëgg alal lool est-ce que su ma gën ñaar ñu xeex wala di xuloo ñu ne lan la ñi ne benn tuyaaba lañ doon xëccoo moo tax ñuy xeex di xuloo déedéet boo déggee reyante wala xeex a xuloo alal la kon nañ delloo si xel yonent bi waxoon na ko yuhibbuuna al maala wa yansawna isaab dañuy fàtte réglé bi keroog te yonent bi nee na benn dërëm bu lewut nga lekk ko mi ngi mel ni waa ju takk fanweer waa ju waa ju xëy dafa fa njaaloo fanweeri njaaloo wala koo xëy daa fekk yaayam ji xaraam yaayam ji xaram mu takk ko nee na li mu araame noon la lekk dërëm bu lewut ci sa biir benn sama benn xarit ku dégg alxuraan dafa wax ni waa ji nga xam ne dafay lekk lu daganut suy jóg yow mal am day tërëf tërëfi du am fu jëm ñu ne déedéet mu ne man ni ma ko déggee mooy day nekk ci àddina di téeli téeli rajax rajaxi te du def dara ay farataam sax du ko def yataxabatahu seytaan eh, eh, eh, gàgganti ma minal masti mu ne kii nga xamee dafay lekk riba dafa mel ni jinne da koo jàpp day làmbatu ti tëli tëlee karajax rajax kon nag bu boobaa loolu dañ ko moytu nee na bokk na ci juróom ya yuhibbuuna al xalqa wa yunsawna al xaaliqa dañuy bëgg mbindeef fii fàtte yàlla mi bind xam dem ci atelier couture bu mag ñu jox la fauteuil nga toog ñu jox la li ñuy wax liifa walla coof walla ñu kilik ordinateur bi pour wan la ay model loo ci jublu tànn model bi la neex pour ñu ñawal la xool leen nag ñun li ñu yàlla defal keroog ba ñuy tànnal melokaanu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ndax su fekkoonte ne dafa def ak ñun ni couture bi di jëflante ak ñun jox la photo nga toog mu jox la liifa bi nga tànnal sa bopp est-ce que duñu échec mbokk yu xooleen naar wu góor ni mu rafeti bu buñ ca takkee ak teg ak yecce war a nekk est-ce que bon nit mënta walbati ba mu yàgg mu a yow yàlla man tànn naa modèle bi pour nga ñawal ma ko xool leen ma gileem afala yansuruna illa al leen ma gileem ak doxam nga ak melokaan bi est-ce que su boobaa mëntu yóbbu ci nit bëgg daraja ba tax mu ne yàlla tànn naa modèle bii di gileem pour nga ñawal ma ko te su ko yàlla ñawee ruux gi moo koy porté bu ne bëxal nit nekk giléem yàlla xam nit ak ak doy dem yàlla jëflanteeg nit ci yërmandeem xam ne su nit ki tànnalee boppam dina échec ca modèle ba muy tànn ndax kon mun na nekk sax ak picc muy naaw wala mu nekk ak mbaaw xuux waaye yàlla wutuñu ca tànn ga tànnal ñu sifatu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ba tey ji ñu mën a toog ci suma wax sax du ci gudd lool insha allah la rek ñu ngi nuyu ñun waa lu dugg yépp yëpp ñu ngi la nuyu daanaka waa Lumba Dugg yëpp ñu ngi fi dañuy ñaan rek Umar Seck ñu ngi la ñaanal waa Lumba Dugg yëpp ñu ngi la ñaanal yaak dikk bi yépp suñu dukkande yéen ñeen xam ngeen ne suñu dukkandoo la ñu jàmm ngeen ñu ne itam dukkandoo jàmm lañu lañuy ñu defe ne te moo am kon nag yàlla na yàlla guddal dikkandoo yi watasimu bi hablillahi jamian wala tafarraqu def nañ ko jàpp nañ ci buum yàlla ah te fas nañ ko yéene ba abadan insha allahu taala eh, li ci tegu moy eh, suma kàddu daan naa wax yàlla la moo fi ne lu dul yàlla yàlla dina ko fiy dindi yàlla itam rasulillah sallallahu alayhi rek la tànn ni ma ko doon waxee rasulillahi rek la yàlla tànn moo tax awliyaaw yi fii nekk yépp ñu xam leen ah moom ñoom itam rasulillahi lañ tànn moo tax cheikh saad bu wi in wax innal muraada min ijaadil xalqi ijaada ahmada li fat qirat boo gisee rek ñu defar àdduna bii rek pour rasulullah sallam génn ci rek ah suñ sëriñ bu baaxu cheikh cheikh ahmad bamba ne antal karimu yow bi anal xadimu antal karimu yow yaay ku tedd ki yow rasulullah sallam anal anal xadimu maay liggéey may sa liggéeykat daxaraan uddiimu fi ak àdduna mu ngi rek man maak yow la mu woy be son mu ne yaa ahla bahri yaa ahla bahri ujubi bahri bahru saxaay yéen ñi nekk ci jaw eh, adduna bi ci ndox bi ak yëpp ñëw leen benn yàgg mu mi daay di sax xaara fa an madi haadi li budalaay man sax suma daa jeex na suma lépp suma xel jeex na pour way yonant bi alayhi salaatu wasalaam alaj si xam ngeen mu man fi aalimil mulki wal arwaayi taabiatun li ruuhi wal jismi haza gaayatul karam du fi jóge yàlla yow moom la woon d'accord nañ ci te sa jaam rek nga koy may nang nañ ko ne yow yàlla waahidu samad yaa may gis duma la gis laa tudrikul absaar wa yudrikul absaar wa latiful xabiir yow yàlla yaa may gis duma la gis yàlla yaaw mi defoon loolu loolu yëpp yàlla na nga ko def ci àdduna bi ba pare def ko ci alaji nag mu mucc ñu muccaale ci nag nañ yàlla nañ mucc shérif nag li may wax yépp yaa tax ndax rasulilahi rek dama bugg na shérif nga ñaanal nit ñi ñépp nag ñu am jàmm waaw man yàlla xamal na ne mu xam nga ko mun nga ko yàlla moo la ko mun loo du man du keneen nga ñaan tànt bii moom ku ci ne feebar sirif na deñ bu amut na am sirif nañ am ñun ñépp ñu jëriñoo ko ñu mucc loolu lañ la sant defal ñu ko nga ñaan ko yàlla teg ko ci loxo sa sa maam mu dugal ci poosam ñu mucc dem am jàmm dugg jànn ndànk fekk nag ñu gudd fan lool nag wasalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu jigéen yi nag ñu ngi leen di nuyu di leen siyaara di leen baal xaq di leen baal xaq di ñaan yàlla mu boole lu baxal di ñaan yàlla lépp lu mas a rafet la na ci suñu bopp rafet gën a neex gën a barkeel ñu ngi siyaara sërif li sama doomu Omar Mor Samb wax du ma ci teg benn kat dama ci kontaan di ko rafetlu sama xol sedd na guy guy guy guy di ñaan alaaji Omar Seck yàlla na yàlla dëgëral sa taxaw alaaji na ko aw géwal ku mel ni sayar gise bi bañ ko gërëmal ñu alaaji Abdoulaye Ciss ñu dox dafa ñëw rek ñu naan wax tey lu muy wax tey ñu lu muy wax tey mu ne alaaji Abdoulaye Ciss mu ne ah, na ko yaa baax Omar Seck jërëjëf yàlla na yàlla dëgëral sa taxawaay wasalaamaaleykum gannaaw ba ma waxee ne maa ngi muslu yàlla ci seytaane rajim moom mi nga xam ne ku daanu wala nga fakkastalu moo la gargal wala moo la ngàdd ma muslu ci bakkan muslu ci bànneex yaar yi nga xam ne léeg-léeg ñu jëf lu toll ne li iblis di jëf ma sant yàlla suñu boroom ci làmmiñu samay kilifa yi ma wax loo te yónni ma ma julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci làmmiñu samay baay samay kilifa samay sëriñ ñoom ñi nga xam ne tey bu baax doon benn tey walla ak ngor ñoom rekk la ndax am na loo xam ne bu amee dafa am mag ñu ñaan wala mag ñu libéré ay bunt kon gone gu xamul sa bopp bañ ne la yow la nga firi say laaf fa sa àlliwa des naa mokk mag ñi rek la al fadlu lil mutaqaddimi waaw mag ñi ñoom rek la ngeen baal ma journaliste yi waaw kon nag maa ngi ñaan yàlla na ma ñépp baal taxawaay bii nga xam ne jaaduwul waaye nag wama ala rasuli illa balaax ndaw su ko bàyyam ne acce magam ne ko acce ndeyam ne ko acce waa dëkkam ne ko acce bu tëkkul ndiggam di daw xottin na orma kon mbokk yi da ngeen gis jëmm ji di déglu kàddu gi waaye jàppale ne magi njuusee wax ak yéen teen bi ma bind ci yonent bi aleyhi salaatu wasalaam wax ko ci moom ci seeni xel ci laa ko jàngate ak seen bëgg-bëgg ba bind ko wax ko kon du man yomb kon tànt bi kenn moomu ko rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam moom dong moo ko moom moom la ñuy ci moom shafaa moom dañuy jaar ci moom sàkku ci moom yàlla yërëm ñu ëllëg yërëm ñu fii defar fii defar fële moo tax mag ñi d'accord tant bu ñu toll ci valeur ñëw fii ci njuus yi ndax bi ma leen ko waxee am na ci ay dëkk yoo xam ne gàmmu jarulu leen ñu dépensé ci trois cent mille jarulu leen ëpp na kon ku jël lu mag plus de million millions francs CFA di ko préparer gàmmu mag ñëm dëkk bu buñ bëggul yàlla duñ la bàyyi nga def ko dañ naa kaa ñu def ko ak kees goo xam ne économiquement dafa am lu ñuy jariñ waaye ay millions yu jaar ñu taal ko bu ñu xëyee dëkk bi yalwaani ndékki mag mu leer yonent bi feesul sa dënn doo bàyyi sa doom di ko def te billaahi mag ñi buñ bëggutoon ma tànt fii kenn du ma fi tànt ñu ngi nii wala kitaab bi buñ ko bañoon fay feneen laay dem di tànt muy lëng-lëngi di bon waaye fii ci njóos dañ koy bëgg rek ndax ñoo moom seen dëkk ñoo ma jur kàddu genn la ci ñoom dongu lay jógee waaye bi ma leen déyee li ma bëgg a def ñu ne njuus yi jaral nañu ko rasulullah jaral nañu ko doom loo fi mën a indi bu dee or sa ak jamaa yi ngeen kon yàlla suñ boroom yow mi nga xam ne yaa xam xaainatul uyun wa maa tux fi sudur billahi wal kitaabi lii ñuy def ngërëmal yàlla rek lañ ci bëgg damaa dajale sama waa kër yépp ma ne leen muy góor ak jigéen soxna ak surga ak keneen ma leen na ngeen yéesal eh, yéene yi li ñuy def bu yàlla taxul dañuy perte dañuy perte dañuy torox kon man ñi ngërëmal yàlla rek lañ ci bëgg moo tax ñu def lii ñuy def bala maa wax nag baat yi ma wax ci yonent bi nga xam ne moo tax ñu tànt ngeen baal ma ma nuyu kilifa diine yi fi rot nuyu kilifa administration bi nga xam ne ñoom it ñëw nañ di jéggulu nag sous préfet parce que cérémonie bi warutoon mën a agsi fii ci gudd waaye yéen da dañoo dégg ngeen de kër magi si ngeen wax Ndiossi dafa ay ay mag la mag moo dugg waadagam wala këram mën naa jiite àdduna ci lislaam kon nag bu ñu ñëwee fii am na nuñ koy sompe rek taxaas demee boor te loolu dañ koy ragal moo tax euh, mu xaw a gudd mais kilifa yi waxtaan nañ d'accord nañ ba boo légee bu ñaar waxee ci njuus yi yóbbaale nañ ku mu mën ni doon ci njuus yi kon na ngeen jéggal ñu tey yàggaay beeg ak débordement bi E ci kilifa yi fi rot ma njëkk ci li fi ñëw ci ay surafa mënuma leen compté waaye doy na rek sama nijaay Cherif Mouhamed Yislim Haydara xam ne siq nañ lu bari mu siq lu bari dëkk bi dama koy tudd rek mu yóbbu ñëpp doy na ci ma tudd sëriñ Maodo si ibnu Mawlana Cheikh Al Hadj Abdoul Aziz Sy nga xam ne mag ñi bi ñu dogoo ci def lii moom moo toog di ko xalaat di ko lëñbët ba joxe ci ndigalam ne ci kàttanu yàlla day war naa mën a nekk ci ndigalal magam Cheikh Ahmed Tidiane Sy al maktum al maaruf bayn yàlla yàlla guddal fanam te gën a wéral ay cëram moom xalifa bu baax kiñ ciy teg. mooy borom Touba Maulana Serigne Cheikh Sidi Makhtar Mbacké mu baax mi Cheikh Serigne Cheikh Mouhamadan Mbacké fa tabarakallahu li ñu waroon wax tey ci Touba baddi ami waroon taxaw tey fii wax ko ci tànt bi kàddu gu gàtt la waaye ku dégg xaayaan ci ka dégg séeréer ñun dégg nañ waxam parce bu suñu àlli wa sori wuti dafa am mag ñu yeewu ñooñu yar bu kaddu jibee rek xam nañ la cay defar xam nañ la cay galgal xam nañ la cay leble xam nañ la cay fayu waaye woon de kaddu mbàkke balaay sa leblewu ci fayewu ci yóbbuntewu ci fa jazahullahu xayr gar mi diine noonu lay mel Serigne Cheikh Tidiane si def ne antum banu diin xaddatul kurama antum zawu ma yaa xayra saadaati gis nga am na jikko joo xam ne bu nekkee ci xolu doomu soxna billaahi du nekk sang mukk alxasuudu laa yasuudu abadan am na jikko joo xam ne tarfatul ay ni bu nekkee ci xol suñ koy wax dañ koy dégg dañ koy gis kooku du mën a nekk sang moom lay mbàkke balaa ay sa dalu ñi fi jël kàddu yi dalu leen teg sëriñ Cheikh Jóoreel Mbàkke mu baax mi di borom Mbàkke Baari waaye dëkk fii ci Njoosi taxaw fii ci kanam télévision nationale wax ci Njoosi loo xam ne sëriñ bu am kañaan doo ko wax te wax na cosaan li mel ni kilifay diine réew mi yépp fii la jógee mu ngi nii toog te looloo lool la yàlla def nag Njoosi la yàlla dogal mu ñu am mag ñoo xam ne masque lañ doon sol lu waay wax ci ñoom boo xëyee boo ko tuubul ñu dal ci sa kaw mag ñépp nag laa la wax mag moo ci tuddul wax ci secret dara soo ko jégaluwut nga am noo def am na fi mag moo xam ne bu yàggul alxaaji abdul aziz si nit ku baax ku àgg ci yàlla moo dem ba ci kaw mu am problème diggante mag boroom moom su su yépp dog mu daw ñëw fëgg buntu alaaji Abdou Aziz mu ne ko si lu ma génn ci xat bii ak jafe-jafe moom laa bëgg góor gi toog ñaar laa fi xam ci si àdduna bi Sénégal ñoo am xaasiya ci salaatul faatihi alxaaji Yuusu Sekk ca ak geneen góor fa tabaarakallaahu am na ñu xam lii may wax ci tànt bi am na mag ñu xam lii may wax barki démb la ko Maxtaar Kebe nettali soo demee ba Njoosi moo xam mu gis la wala mu bañ laa gis soo defee léegi lii la nga nekk nga génne ca góor gi ñëw fii ci pénc mi def ko 24 heures mu génn ci loolu mag ngi fii di maam Makumba Cissé Serigne Touba toog fii ci xur wi ne saa yii ku xam Makumba Cissé ca Ndiossi ku ko xam doo dem safara ndax fu ma tourné seen leeram gi di jolli ca si maa ngi ñaan mag ñi nañ ma baal nañ ma baal seen mart ba na ma jéggal mag ñooñu dañuy sol masque dañu waxoon bu leen kenn xam. Mamour Mbengue def na ko xuus na fii dem ba Tiwaawan ñu jox ko mu jiite ca jàkka ja mooy wajuri kii di wax nii la wallaahi la azim mooy maamam bokk mbokk yi mag ñooñu dañu doon sol masque dañoo ñaanoon bu leen kenn xam fii nañ bay ba ëllëg waaye nag am na ci ko waxoon ne su ma rëgulutoon mu diis ci yéen dinaa saxal ci yéen gàmm kon mag ñi bu demee ba baay yu baax yii joxe ndigal ñaan ñu mën a ñaan di tëju ñoom dañuy ñaan dañuy jàng alxuraan ba seen jë njaboot mën a def indi bu seen njaboot defee ne moom la dafa dof waaye xam ne ne ñaanu mag ñi la kon kilifa diine yépp ni cérémonie bi demee na ma ñëpp baal du ma leen mën a tudd tey waaye maa ngi ñaan képp ku ma tudd yàlla la yàlla tudd may laaj nag tudd yàlla ak sa tudd Omar Seck ban moo gën bu yàlla gën na leen yàlla tudd yéen ñëpp fa tabarakallahu Serigne Moustapha Lo mi jiite daara yi dem na léegi e, ak délégation bi mu ànd ak Serigne Ndiaga Mbaye bu maam Cheikh Mbaye ca Louga ma ca Serigne Habib Dia mu baax di suma xarit di suma wóllëre mi ngi nii toog yàkkantiwul délégation ngeen gis ngeen léegi Serigne Fallou wax na ci turu sëñ Maodo dem na walla su ko da nga ne damaa demee boor de mm-hmm. waaw bi président Macky lay njëkk yi parce que alxaaji Abdoul Aziz dafa daan wax ne su daan def cérémonie officielle sëriñ Abdoul Aziz Al Amin jàpp ci loxoom bi ànd ak sëriñ Mansour borom daara ji ñun ñoom ñoo ci xaar gouvernement bi ñu ñëw tey wax lii tey sëriñ Mamour Seck di wax mm-hmm. bu ñu paree nag am ñu ko demee ca marché ba ne discours tey Mamour Seck ba discours yu El Hadj Abdou ba dafa tëgg Abdou Diouf ba nangam dafa def lii Abdou Aziz Junior laka ya Abdoul Aziz jazakallahu ya Abdoul Aziz ataala llahu umrak ataala llahu baqaak buñu demee ne laa mu dal li leen njëkk ne leen yàlla nee na abdi lam yashkur nii ida lam yashkur man ajraytu niamati ala yadi sama jaam bi soo amee kum siqal ci àdduna am lu ko dugg ci xorom ba mënu koo sant yàlla nee na bu bëtti asamaan yi juróom-ñaar dóor leen fi ay bolle na ko ful grand maa leen ko wax bala ngay sant yàlla nit ngay sant yàlla door a nangu sama rakk Bamba Ñang moom sama bàyyi alxaaji Ousmane Ñang doyoon na rek Sëriñ Fàllu ñëw mais li Sëriñ Fàllu wax dëgg la alxaaji Ousmane sama xarit la sama wëlëre la sama soppe la sama bàyyi la ku ma jàppale la boobu ba léegi mi may woo Omar nu may def ba ñëw njuusi waaye nu may def ba bay gàmm gi waaye ku ma am ci njaboot danañ ñëw góor ak jigéen mag ak ndaw ñëpp ñëw nañu jazakumullahu xeer et gouvernement bi président Macky laa ci jiita président yàlla na ko yàlla jàppale parce que dëgg la li chef d'état yi fi jaar ba ci moom war a def ci diine kenn defagu ci lu mu ci war a def ba ci moom laa wax de kenn defagu ci li nga xam ne moom la war a def ci diine waaye moom président lim ci defagun kenn deful lu toll noonu parce que Touba gi tey almahrusa dem leen fa gis la mu fa def bu bëggutoon ndamal diine du ko def ila Touba gi est-ce que xam ngeen ne ñaata nangami junniy milliards la xoolal li mu def tey tiwaawan bii nga xam ne ñun tey moom la ñu noyyee mooy suñ xol suñu kilifa yi nekk moom la ñu dundee xoolal dama ko def xoolal luwaa daara yi bi mu fi jibee luwaa bu metti boobu ñu bëgg a jël révolté wu mu xëy wooñu ñun ñëpp ñu toog mu ne maa ne woon luwaa bi day dem waaye tegaat naa ko ci suuf ba jubóog yéen kooku bëggul jàmm du ko def bërki démb rek gis naa ba fi Obama ñëwee tubaab yi xam nga yàlla ma yàlla baal ñoom ñëpp ay kàccoor lañ ku moytuwul ñu sànk la chef d'état africain bu moytuwul dañ lay sànq ñu ne ngóor jigéen mu ne Sénégal pareegul pour def loolu fii mënu fee am mais loolu bu leen ko xeeb bu nekkoon am yembar hmm? nekk am yaanaa ni américain jox ko alal alal ji ñu ko jox wala ne ko secret monde bi ak àddina bi ñoo ko téye man na jéem a bëlëfee ba wax luy neex eh, Obama mais def ne ko Obama bëgg naa la trop mais loolu mënul am bërki démb bu rafet naa bii nga xam tey moo ñu tiitaloon ñëpp. biñ ci dugalee laïcité man dama ne woon bu laïcité bi jàllee duma ko woteel parce que sama dégg-dégg foofu la toll mais jullit ñu ñëw ko rek président daal ne ah man kat jullit laa lu ma yëkkati sama peuple jullit ñi am ci gis-gis damay delluwaat gannaaw dem diisoo ak ñoom dama koy conseiller méthode boobu président Macky bu mu ko wàcc na continuer di diisoo ak chef religieux yi xañ na xamul lislaam ni mu ko war a xame mais Touba ak Tiwaawan ak Njaasaan Sorofaawuy Yoof Laayeen Caneba Kawlax kuy diisoog ñoom doo juum lu mu yëkkati bu naree garaaw bu ñëwoo na delluwaat gannaaw rek gis nga Muawiya ku mën politique la Muawiya ibnu Abu Sufyaan def ne law kaana bayni wa baynana sha'ra man qata'at in shadduha arxuha wa in arxuha aw kama qaal mu ne gis nga bu nekkoon sama digganteeg nit ma koy xëccoog moom du dagg ndax heure bu xëccee rek ma yolomaan bu yolomee ma gaaw xëccaat kon président na continuer di diisoo ak chef religieux yi di leen invité ndogu ak añ di leen laaj xalaat ci diine ji parce que diine yi chef religieux yi dañ cee am xel am ci xalaat ma wax leen tey nag chef religieux yi ñoo gën a garaaw fuuf homme politique yi ñoo leen gën a yeewu foofu parce que liñ jàng ci science jàngal nañ ko liñ jàng ci psychologie jàngal nañ ko liñ jàng ci technologie jàngal nañ ko liñ jàng ci philosophie jàng nañ ko liñ jàng ci sociologie jàng nañ ko liñ jàng ci li waaye jàng nañ al quranul karim ummul kitaab président bu fi ñëw te boole wooñu ci ñun ñooy jiite jumaa yi danañ jël aaya yàlla yi di ko firi ci façon jamono yoo xam ne di wax ak population bi ba convaincre leen soo jubalul islam population bi dëddu la ñooy dem ci ngénte yi ñu demee tudd doom yi parasito def fa ay discours influence population bi ñooy jullee néew yi di dem ci dëj yi di waare ñu ñuy dégg danañ influence ñépp ba ku la bëgg duus la a bañ gën laa bañ waaye nag boo nekkee ci dëgg di diisoo kilifa diine yi jox leen seen cër bañ leen xel ñu défendre la ñu défendre la laa wax waaye boo ko lankee mooy ko ñu combattre la président Macky nag heureusement ba actuellement fii may wax nii loolu dala gu ko dala gu ko laa wax yàlla bu mu ko dal nag message la bu may lancé kon li fi am lépp dama koy gërëm ndax tante bi tey xam ngeen ne man awma ñaar dërëm yu mën a suukar soow yalwaan dong laay def ab taalibi laa boo xam ne gàmmu gi biñ ko tuddee Mamour Mari mii laay njëkk àddu kat bi mi ngi nii déglu sama loxo ci poos bi mu ne waaye alaaji bay maag ma ne ko dara dama koy jël mbay si ngi nii jàkkaarloo ma kon maa ngi xam ne su may song nit ñi ci ëtt ci ba àll ba ñi bëgg njoosi laay njëkk a song ne leen indi leen seen àll jox ma ko ma def ko ci gàmm gi lu ma waay jox de lu jaar sama loxo laa wax pare naa ak lu ma am def ko ci gàmmu gi jaral na ma ko lu jaaru suma loxo nag duma ci mën a addu duma ci mën a contrôler dara waaye lépp lu ma jox pour gàmmu Ndiossi jaral na ma lu ne pour ma def ko ci ñu ne nag bu ma xëyee yalwaan yalwaan moom dama ko yàgg def awma ci problème leeru yonent bi jaral nañu ko tant bii ñi xam àdduna tey dox 4 millions may ko ñi ma ci jàppale Sénégal baas lañ njëkk def defal offre du wax nag ci yonent bi di bëgg ngërëmam toog fii di fen ba suba di ñàkk bi ñu wootee Sénégal baas ñu defe leen offre muy 7 millions francs CFA kama bëgg dimbale na xaaral ñu doon ñuy seeti keneen mu wax leneen ñu dem xel ko mbaas ma ne su ma deful teg takku taalibe duñu am mbaas bu baax ma ñëw rek am fu ma jaarawaay javeeru taalibe di ko mocc ko yaa mun yow mënoo am baas bi baas bi nangam ma ne ko am de di négocier di négocier ba mu wàcc ba gën a wàcc ba gën a wàcc ma jóg nag seeti samay mbokk ñépp ma jàppale mais Ibrahima Ndiaye bu Ageroute bi war a defar yoonu Ndiosi wii tant bi tey bu duggutoon ak moom tey du ñëw fii ci Ndiosi mooy nijaayu Ousseyn Ndiaye maire de Daara bii may wax xam na li may wax lu amul seeni baaxu bi ma ñëwee ci bureau poñe ko ne ko yoon yi il faut ñu defar ko mu ne ko waxuma yoon wi waaye damay participer ci ci njóos yi en tant parce que am na lu ma dégg ci njóos yi billaahi wal kitaabi mu dindi trois cent mille francs CFA ne ma am ma avancé dindi ci carburant deux cent et quelques mille jox ma ne baas bi nag man Ibrahima Ndiaye attanuma ko ajurut ci laa koy def ñu ñu la cee jàppale ñu jàppale ma ci def lañ man may ma def lañ man mag ñu def lañ man tànt bi ñëw kon kooku kilifaam président préfet nga baal ma dinaa ko gërëm ci loolu ñaareel bi maa ngi gërëm alaaji Aliou Nguy Ndiaye kooku sax suma ma koy gërëm dama ciy def ndànk ndax Aliou du ma ko waxal lu mu amul moom Jibi Ndiaye mii ñoo bokk benn maam mën nañ maa ëppale mais mënuñu maa gën waaye nag lu baax ku ko def ñu wax la alinguy bi gàmmu gi commencé ba léegi nii laay def rek yoonu tool léeg-léeg damay ñëw sax mun bu bu déggee ne kuy ñëw ñu ne sa nijaay mu ubbuntu ba ne sama nijaay ay engagement moom dafa wax na ko jibi ay engagement moom dama ko ragal ma nekk ko Ali man damay engagé rek lim ma defal ci gàmm gi bay maamu maa ngi leen koy seeral yéen ñëpp mënuma ko wax Ali yal na ko yàlla gërëm yal na ko yàlla yokk ba mu àgg Jibi Njaay ñu ko fa représenté bu aneer moom it kazalik li ma wax ci Ali lay wax ci moom sama diggante moom yëmul ci gàmm jour le jour fu ñu toll lu ma soxla rek jibi day ñëw te li gën a neex sax su ma ne ko ma ñu mun a deet bàyyil ma ñëw ndax yow ab nitu diine nga waruloo dox ci yenn soxla yi di gërëm Cheikh Mbacke Fall mii ah Cheikh Mbacke Diop message la bu may lancé kon li fi am lépp dama koy gërëm ndax tànt bi tey xam ngeen ne man awma ñaar dërëm yu mën a suukar soow yalwaan dong laay def ab taalibe laa boo xam ne gàmmu gi bi ñu ko tuddee Mamour Mari mi laay njëkk addu kat bi mi ngi nii déggal sama loxo ci poos bi mu ne waaye alaaji bay maag ma ne ko dara dama koy jël mbay si ngi ni jàkkaarloog man kon maa ngi xam ne su may song nit ñi ci ëtt ci ba àll ba ñi bëgg njoosi laay njëkk a song ne leen indi leen seen àll jox ma ko ma def ko ci gàmmu gi lu ma waay jox de lu jaar sama loxo laa wax pare naa ak lu ma am def ko ci gàmmu gi jaral na ma ko lu jaar ci sama loxo nag du ci mën a addu du ma ci mën a contrôler dara waaye lépp lu ma jox pour Gàmba Njóosi jaral na ma lu nekk pour ma def ko ci ñu ne nag bu ma xëyee yalwaan yi yalwaan moom dama ko yàgg def awma ci problème leeru yonent bi jaral nañu ko tant bi ñi xam àdduna tey dox 4 millions may ko ñi ma ci jàppale Sénégal baas lañ njëkk a def defal offre du ma wax nag ci yonent bi di bëgg ngërëmam toog fii di fen ba suba di ñàkk bi ñu wootee Sénégal baas ñu defe leen offre muy 7 millions francais CFA ka ma doon bëgg dimbale dama xaaral ñu doon ñuy seeti keneen mu wax leneen ñu dem xel ko mbaas ma ne su ma deful teg takku taalibe duñu am mbaas bu baax ma ñëw rek am fu ma jaar waaye jaaveeru taalibe di ko mocc ko yaa mun ma yow mënoo am mbaas bi mbaas bi nangam ma ne ko dinaa ko am de di négocier di négocier ba mu wàcc ba gën a wàcc ba gën a wàcc ma jóg nag seeti samay mbokk ñépp ma jàppale mais Ibrahima Ndiaye bu Ageroute bi war a defar yoonu Ndiosi wii tant bi tey bu duggutoon ak moom tey du ñëw fii ci Ndiosi mooy nijaayu Ousseyn Ndiaye maire de Daara bii may wax xam na li may wax lu amul seede baaxoo bi ma ñëwee ci bureau poñe ko ne ko yoon yi il faut ñu defar ko mu ne ko waxuma yoon wi waaye damay participer ci ci njóos yi en tant que taalibe parce que am na lu ma dégg ci njóos yi billaahi wal kitaabi mu dindi trois cent mille francs CFA ne ma am ma avancé dindi ci carburant deux cent et quelques mille jox ma ne base bi nag man Ibrahima Ndiaye attanu ma ko ajurut ah, ci laa koy def ñu ñu jéem la cee jàppale ñu jàppale ma ci def lañ man may ma def lañ man mag ñu def lañ man tànt bi ñëw kon kooku kilifaam président préfet nga baal ma dinaa ko gërëm ci loolu ñaareel bi maa ngi gërëm alaaji Aliou Nguy Njaay kooku sax su ma koy gërëm dama ci def ndànk ndax Aliou duma ko waxal lu mu amul moog Jibi Njaay mii ñoo bokk benn maam mën nañ maa ëppale mais mënuñu maa gën waaye nag lu baax ku ko def ñu wax la Aly Ngouille bi gàmmu gi commencé ba léegi nii laay def rek yoonu tool léeg-léeg damay ñëw sax mun bu bu déggee ne kuy ñëw ñu ne sa nijaay mu ubbuntu ba ne sama nijaay ay engagement moom dafa wax na ko jibi ay engagement moom dama ko ragal ma nekk ko Aly ah, man damay engagé rek lim ma defal ci gàmmu gi bay maamu maa ngi leen koy seedal yéen ñëpp ma ko wax Aly yal na ko yàlla gërëm yal na ko yàlla yokk ba mu àgg Jibi Njaay mi ko fa représenté bu aneer moom it kazaalika li ma wax ci Ali lay wax ci moom sama diggante moom yi yëmul ci gàmm jour la jour fu ñu toll lu ma soxla rek jibi day ñëw te li gën a neex sax su ma ne ko mu ñu mën a deet bàyyil ma ñëw ndax yow ab nitu diine nga waruloo dox ci yenn soxla yi di gërëm Cheikh Mbacke Fall mii ah Cheikh Mbacke Diop lu jaarul ci sama loxo nag duma ci mën a addu duma ci man a contrôler dara waaye lépp lu ñu ma jox pour Gamba Ndiossi jaral na ma lu nekk pour ma def ko ci ñu ne nag bu ma xëyee yalwaan yi yalwaan moom dama ko yàgg def aw ci problème leeru yonent bi jaral nañu ko tant bi ñi xam àdduna tey dox 4 millions may yóbbu ñépp ma jàppale mais Ibrahima Ndiaye bu Ageroute bi war a defar yoonu Njóosi wii tant bi tey bu duggutoon ak moom tey lu ñëw fii ci Njóosi mooy nijaayu Ousseyn Ndiaye maire de Daara bii may wax xam na li may wax lu amul seede baaxoo. kon kooku kilifaam président préfet nga baal ma dinaa ko gërëm ci loolu ñaareel bi maa ngi gërëm El Hadj Aliou Ngouye kooku sax su ma koy gërëm dama ci def ndànk ndax Aliou du ma ko waxal lu mu amul moog Jibi Ndiaye mii. ñoo bokk benn maam mën nañ maa ëppale mais mënuñu maa gën waaye nag lu baax ku ko def ñu wax la alinguy bi gàmmu gi commencé ba léegi nii laay def rek yoonu tool léeg-léeg damay ñëw sax mun bu bu déggee ne kuy ñëw ñu ne sa sa nijaay mu ub buntu ba ne sama nijaay ay engagement moom da wax na ko jibi ay engagement moom dama koo ragal ma ne ko Ali man damay engagé rek lim ma defal ci gàmmu gi bay maamu maa ngi leen koy seedeel yéen ñëpp mënuma ko wax Ali yal na ko yàlla gërëm yal na ko yàlla yokk ba mu àgg xale bu ndaw bi doon jàngi fii alquran Mouhamed Ba la tudd bàyyam ba nga ne lañ dajee 2000 lan 2001 lañ dajee Màkka mu ne man de gëj naa am doom waaye man su ma amatee doom yàlla nattu la jox la daara danaa la ko jox nga jàngal ko alquran mu ñëw rek yàlla natt ko rek jox ko doom muy xool doom bi rek mu ne ko boo ma tee jàng dem njoosi de xale bi am 6 ans mu ne ko acca ilaa njoosi mu jox ma ko xale bi wàcc na alquran tey li muy wax tari na alif lam mim zalikal kitab ba xool onze bi rabbi mi ngi dawal mais actuellement mi ngi def sem 2 bi ñu defee composition moo jël su ma juumul euh, troisième wala deuxième loo jël deuxième kon alquran du gàllankoor kenn pour mu nekk lu war a nekk daaray njoo si jàngi nii ku bëgg sa doom ëllëg nekk président ba nekk imam soo ko indee ci daara ji fii ñu defal la ko noonu boo ko indee bu ñu defal ko noonu boo ko indee caaro yi yore nañ fa internant bu mag sama soxna Basir Mbeng mii di sëtu Sëriñ Mbuula moom laa ko dénk moo koy yore mooy jiite njàngale ma nitu alxuraan la ku fa ñëwit ñu interne la wala ñu defal defale externe wala leneen daara jooju laay ñaan ku ci mën a jàpp na ci jàpp pour mu dem beneen bi fi may jeexale El Hadj Mouhamadou Lamine Dramé yow ci waa si nga bokk duma xaabaabal ci yow dama lay ñaanal yàlla rek yow ak Sayar ak Sooseek ñi ngeen ànd ak yéen duma leen gërëm ak Alioune Mbaye ak équipe bi mu ànd ak ci man ngeen bokk duma ko tudd ma ne xoolal maan ma gandi muy indien bi nga xam ne révolution Inde mooy góor gi takkoon ndigam sauvé Inde yi mais pourtant du woon jullit mais dégg li wax ci discours bi mu ne wallaahi gëm naa ne yonent yàlla Muhammad ne nekkul ne jaasi la utiliser ba occuper espace monde bi mu occuper am li mu am tey ci ay taalibe ci ay jullit utiliser wul jaasi jukko ju rëy ak yiw ak mbaax kanam guy bëri naxante jëlale la ku xam ne yow yaa ko gën a bañ mu xam ko day lamb ay poosam jël di la jox alalam di la ñuuxu di la tatagal di la siiñal di la raayal te xam ne ne bu ñu la turoon tey mu rendi la mu ne yonent bi fii la jaar bay bañ na ko li nga am mu ngeen yi jëlal maanaam gan ñi mooy waxtu du jullit laxat asbaqtu muxtani an kullal ixtina mu ne du jaasi mais kon tey ñi tuumaal lislaam ba ne lislaam diiney irhab la hmm? terrorisme bi nga xam ne ñu koy coow ci àdduna bi wax ñu dëgg lislaam diiney yërmande la Mahatma Gandhi mooy wax nee na foofu la jaar ba ba ba ba am jullit ñi mu am ñépp ñépp nekk tey ay taalibeem du ma ci sori ndax bu ma ci soree tànt bii dem ba ma mu topp ko noonu bu ñu amee beneen temps xaj na bu ñu dajee muy le 26. Mhm. ku ma fa fekk thème bii lay lay conférence incha allah le 26. Mhm. Mahatma Gandhi mhm. moomu mujj na dem ba doomam tuub na tudd Abdoulaye Gandhi biñ ko nekk waaye sa doom ñu mën a bare ko kat waa ji moom ku ko ñam na ñuy dem ba mu yàgg am beneen anglais Bernard Shaw laa ilaha illallah déggal moom li mu wax. moom ujuba xaariqa la ko def mu ne laqad atlaatu amra haza rajul fa wajadtu annahu ujuba xaariqa mu ne man daal philosophe la ponkal la ci ponkal penseur yi gën a mag ci an adduna bi la bokk mu ni man daal toog naa dugg naa ci géej gi dugg ci jéer yi yëg ci kaw yëg ci suuf xam naa ne Seydina Muhammad su ma mënoon a wax ne njuuma la ma ne njuuma la ndax li mu réussir ak ni mu mel ku yàlla tegul loxo ku amul yenn vertu yi mënuloo koo am moom sallallahu alayhi wa sallam mu ne dem naa ba ne ñi moom diine bii noonu la ci yeneen diine yi du dëgg diine lislaam du di du noonu christianisme du noonu leneen du noonu leneen waaye diine la joo xam ne ixtiraam wal ijlaal diine ju jox nit cëram di ko njukkal di ko jox jàmm di dox ci équilibre mën a am ci àdduna comme keneen ku am beneen politique ci àdduna bu la naqari wala cause boo nar a défendre bëgg ndax ay doomu jullit bëgg leen dugal ci benn surki di leen defloo yenn yi ne doomu jullit ñi lànk te toog ba gis ku ku ku contre l'islam bañ ko bañ bu wér mag ñi vérifié ko ne kooku du noonu ñu combattre ko waaye kaay jàppale ma ma régler sama temps régler sama affaire loolu bu ci kenn dem moo tax fi may jeexalee ma nettali alaaji Malick ci suuf mu tagg ko ne gis nga bi ñu xoolee njool mbàkk Seydina Muhammad lañ bët ko ci wàllu yépp moom daal moom rek moo na ca cet set wecc se Serigne Touba bu leen way guddi na walaay Ousseynou guddi na amin dina ada aba xale bu ndaw bi doon jàngi fii alquran Mouhamed Balla tudd bàyyam ma nga ne toog Linguère 2006 lañ dajee 2000 lan 2001 lañ dajee màkk mu ne man de gëj naa am doom waaye man su ma amatee doom yàlla nattu la jox la daara danaa la ko jox nga jàngal ko alxuraan mu ñëw rek yàlla natt ko rek jox ko doom muy xool doom bi rek mu ne ko boo ma dee jàng dem Ndiossi de xale bi am 6 ans mu ne ko acca ilaa Ndiossi mu jox ma ko xale bi wàcc na alxuraan tey li wax tari na alif lam mim zalikal kitab ba xool onze mi ngi dawal mais actuellement mi ngi def CM2 bi ñu defee composition moo jël su ma juumul euh, troisième wala deuxième loo jël deuxième kon alquran du gàllankoor kenn pour mu nekk lu mu war a nekk daaray njoo si jàngi nii ku bëgg sa doom ëllëg nekk président ba nekk imaam soo ko indee ci daara ji fii ñu defal la ko noonu boo ko indee bolo ñu defal la ko noonu boo ko indee caaro yi yore nañ fa internat bu mag sama soxna Basine Mbengue mii di sëtu Serigne Mbuula moom laa ko dénk moo koy yore mooy jiite njàngale ma nitu alxuraan la ku fa ñëwit ñu interne la wala ñu defale externe wala leneen daara jooju laay ñaan ku ci mën a jàpp na ci jàpp pour mu dem beneen bi fi may jeexale El Hadj Mouhamadou Lamine Dramé yow ci waa Ndiossi nga bokk duma ma xaabaabal ci yow dama lay ñaanal yàlla rek yow ak Sayer ak Socé ñi ngeen ànd ak duma leen gërëm ak Alioune Mbaye ak équipe bi mu ànd ci man ngeen bokk yéen sama lépp. waaye dama wax ne ci discours bi ma bind ne yonent bi moo mën a xettali jaam yi tey ak ëllëg muy le sauveur de l'humanité sallallahu alayhi wa daal di jaar ci discours bi ne boroom xam-xam yépp idéologie yi fi jaar yépp ñépp lajj nañ ñépp échec nañ bam des sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom day law fa indi woon maxul laxul melut ne leen ba tey ma nga fa wan rek ma in tamassaktum bihi oustaz ba lan tadillu baadi abadan kitaaballahi wa sunnati moom laa wax ne solution adduna bi tamante dëmm bi fi nekk mattante beeg xiirante beeg ŋaayoo bi ñu ne àddunaa ngi waaje wa juutu nañu di dégluwaat yonent bi rek mu réglé waat tegewaat ci raay bi loolu laa wax ci discours bi ma wax ma wax ne gis nga li may wax tey duma ma lu bari ci maam alaaji Malick naan ci xilaas naan wasaliyan yaa ilaa yeeg yaa xaysal baxrayk lil asdaafi indi asdaafun biha a ala min al jalameek ak addit nizaaran ma adan man yu jaawise adnaanan fax nangam nangam nangam du ma wax loolu mi gaamu nag du ma wax tamit yaa saadatal islam yaa nujmal wara yeneen yooyu yëpp du ma ko tudd ma ne ma gandi muy indien bi nga xam ne révolution inde muy góor gi takkoon ndiggam sobee inde yi mais pourtant du woon jullit mais dégg li mu wax ci discours bi mu ne wallahi gëm naa ne yonent yàlla Muhammad ne nekkul ne si la utiliser ba occuper espace monde bi mu occuper am li mu am tey ci ay taalibe ci ay jullit utiliser wul jaasi jukko ju rëy ak yiw ak mbaax kanam guy belli naxante jëlale la kum xam ne yow yaa ko gën a bañ mu xam ko day làmb ay poosam jël di la jox alalam di la ñuuxu di la tatagal di la siiñal di la raayal te xam ne ni ñu la turoon tey mu rendi la mu ne yonent bi fii la jaar ba bañ na ko li nga am mu ngi nii jëlal maanaam gan gi mooy waxtu du jullit laxat asbaxtu muxtani an kullal ixtina mu ne du jaasi mais kon tey ñi tuumaal lislaam ba ne lislaam diiney irhab la hmm? terrorisme bi nga xam ne ñu ngi koy coow ci àddina bi wax ñu dëgg mm-hmm. l'islam diine yërmande la ma Mahatma Gandhi mooy wax nee na foofu la jaar mm-hmm. ba ba ba ba am jullit ñi mu am ñépp ñépp nekk tey ay taalibeem mm-hmm. du ma ci sori ndax bu ma ci soree tante bii dem ba ma mu topp ko noonu bu ñu amee beneen temps xaj na bu ñu dajee muy le 26 ku ma fa fekk thème bii lay lay conférence insha allah le 26 Mahatma Gandhi moomu mujj na dem ba doomam tuub na tudd Abdoulaye Gandhi biñ ko nekk waaye sa doom ñu mën a baleen ko kat waa ji moom ku ko ñam tabaarkal la ñuy dem ba mu yàgg am beneen anglais Bernard de Shaw laa ilaha illallah déggal moom li mu wax moom wax juuba la ko def mu ne laqad atlaqtu amra haza rajul fa wajadtu annahu ujuba xaariqa mu ne man daal philosophe la ponkal la ci ponkal penseur yi gën a mag ci an àdduna bi la bokk mu ni man daal toog naa dugg naa ci géej gi dugg ci jéer yi yëg ci kaw yëg ci suuf xam naa ne Seydina Muhammad su ma mënoon a wax ne njuuma la ma ne njuuma la ndax li mu réussir ak ni mu mel ku yàlla tegul loxo ku amul yenn vertu yi mënuloo koo am moom sallallahu alayhi wa mu ne dem naa ba ne ñi ne moom diine bi noonu la ci yeneen diine yi du dëgg diine lislaam du di du noonu christianisme du noonu leneen du noonu leneen waaye diine la joo xam ne ixtiraam wal ijlaal diine di jox nit cëram di ko njukkal di ko jox jàmm di dox ci équilibre mën a am ci àdduna comme keneen ku am beneen politique ci àdduna bu la naqari wala cause boo nar a défendre bëgg ndax ay doomu jullit bëgg leen dugal ci benn surki di leen defloo yenn yi ne doomu jullit ñi lànk te toog ba gis ku ku ku contre l'islam bañ ko bañ bu wér mag ñi vérifié ko ne kooku du noonu ñu combattre ko waaye kaay jàppale ma ma régler sama temps régler sama affaire loolu bu ci kenn dem moo tax fi may jeexalee ma nettali alaaji Malick ci suuf mu tagg ko ne gis nga bi ñu xoolee njool mbàkk Seydina Muhammad lañ bët ko ci wàllu yépp moom daal moom rek moo na ca cet set wecc se Serigne Touba bu leen way guddi na walaay Ousseynou guddi na amin dina ada aba sant Serigne Cheikh Tidiane Sy bu Mérina Sy di sama baay di sama sëriñ di ku ma jàppale doomam Abdou Aziz ngi nii toog daf ne ko boo demee bul toog ci 16 toogal ci peggu Omar bu juumee nga gàgganti yëkkati enveloppe jox ma loolu fa la nit ku baax mën a yomb kon ñu ngi dëgg tey waxtaan wi sëriñ Habib yéen ñëpp ñu leen di jégglu kilifa diine yi fi nekk euh, délégation yi turaadu yéen ñi ma waroon tudd ñëpp monsieur le maire de Boulal Alaaji Njaga chef du village de Boulal nañ ma baal ax mhm. xam ne bis bi yàlla moo ko nammee ni bëgge ko waaye jàng nañ fi ñaari junni yi kaamil ak ñaari téeméer ak ñaar fukk ak aslëf mhm. maa la ko wax ndar jàng nañ 1111 mhm. sëriñ xaali jaxate jaxate jox na ma lu jege 700 et quelque réew mi Kaolack jàng nañ partout Ndiossi jàng nañ fépp jàng nañ ba mat ko xam nga lan lañ ci jublu takk ko aw say haddiyal ko rasulullahi ne lii ku ci sonn yàlla boo sonn sonnati ci àdduna ak ci alaaxira ku ci d'accord yàlla na sa lépp jag àdduna ak alaaxira ku ci mel neneen yàlla la yàlla walbati ba nga mel ne ñëpp ndax nga am ci lii ñëpp am préfet ci barke kaamil yooyu yàlla la yàlla def gouverneur ba ñu taxaw jàkkaarloo ñu wax na ko ñaan mën na lu ne ndax yaa ngi toog ak kenn du ma tudd turam ci sa wet jàkkaarloo na nit ne ko yàlla nga nangam yàlla def ko lu ëpp loolu du ma ko tudd ndax jamono bi laal ko waaye moom xam na li may wax mhm. njaltu saar yéen ñépp seen participation egsi na mhm. am na nag ñu ma déey na am na lu ma indi woon di la ko jox te agsiwul mhm. waaye fu mën a dem rek baax na bis bi moom jàkk lañ ci bëggoon fexe nañ ba jàkk na lu agsi su suñ loxo jàkk na lu àgg ci beneen loxo jàkk na yàlla yàlla defar lépp wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu léegi lenn la ñu def sous préfet Moussa Yat képp ku toog déglu kàddoom barke kaamil yi yàlla la dal ma leen wax lu leer préfet ku toog déglu ay kàddoom yàlla la barke kaamil yi dal ku jóg elaa avant mooy wax nag liñ ma yónni dama bëgg a wax ci euh, oustaz euh, Omar Seck waxtu bi gudd kuy wax ci yonent bi normalement dañoo war a man tiwaa bi ma nekkee ngaay mexe xam ngeen nga ku ñu xam ñaay mexe xam nga ni mu mel ak tiwaawoon boobu ndeysaan euh, Ibrahima saaxo moo doon nekk ci zoye bi dañ fa doon nekk tëju fa ku ne ci ñun sandwich ngay yóbbu ñu tëj bunt yi suñ fa nekkee nekk fa ba fajar Euh, Abdou Aziz Dabaax ñëw waxtaan ak ñun ñaan ba pare ñu ndog ñibbi ñun dañuy romb rek dem bon nag amul kii euh, li ngeen war a wax kay moo di këne ñi nga xamante ne ñoo waxtaan ci yonent bi doyut li ma ci bëggoon a dëgg doyut puisque ñan ñoo doon ànd ak ñoom fan bii yonent bi ci boppam lan la doon def ay ñëw ay saabam lan lañ doon def yooyu yëpp waxaguñ te donc bukken tey tey ci boppam ci waxu yonent bi dem na ba ñàkk a gëm yàlla puisque fu yonent bi euh, béggee rek na leen wóor ne yegg na ci yàlla ma bëgg leen wax ne képp ku ci wax nag ci affaire yonent bi bu am benn programme boo xamante président Macky Sall moo ko indi am na ay problème yu mari mais bi nga xamante ne moo gën a jàmp ci ñun mooy couverture maladie universelle mu am nag ñaari intérêt maanaam mutuelle de santé kenn dootul xam ne kii doomu ministre la mbaa doomu baadola buy faju doo fay mais day fekk gox bu ne daal ñépp ñi fa nekk mag jigéen góor ak ndaw nañ dem bokk ca mutuelle ba di cotiser di adhérer su ngeen ko defee képp ku feebarati soo doomee doo fay donc na ko ñëpp def commune yëpp nga koy def village bu ne mën nañ bindu ca chef de village ba list bi ak xaalis bi mu yóbbu ko ca mairie ba ñaareelu intérêt bi moo di que ne yàlla daa bind ñëpp te yemalewut am na ñoo xamante dañoo sëgg mais yàlla may na leen loo xamante ne mayu ko ñi nga xamante ñu ngi xool puisque na leen wóor ne may boobu mooy mosu leen dëgg mukk ñuy wër nit ndakaaru naan dafa sëgg dafa réer ñuy xool donc ñooy réer ndakaaru te ñoom su ku dem yàgg dem ndakaar da ngay gis ñu dugg oto xam nañ bis bi fañ la leen ci arrêt bi ñu wàcc suñ wàccee seen kër lañuy dem yenn yi soo jógee fii dem Dakar da nga laajte laajte bañ jëppi la. te yow da xoole mën nga liir mën nga lépp donc am na li leen yàlla may mooy comme ñii nga xamante ne lamp yi ñu yore mooy nit yi ñu yore yàlla dene euh, pour ngeen xaritoo yéen nit yi yéen a koy def pour ngeen noonoo yéen nit yi yéen a koy def mais pour ngeen daje maintenant li ñuy wax voisinage maanaam dëkkandoo loolu yàlla koy def yàlla moo tudd ñu jóge fii puisque ñu bëri xamuñ fu ma jóge mais yàlla tudd ne il faut ma dëkk ak yéen xaritoog yéen nag maa koy def ak yéen noonoo kenn maa koy def ak yéen mais dëkk maintenant dëkk bu rafet dañoo bëgg nag dëkkin ba rafet ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف ربنا عليك توكلنا وإليك ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا آمين. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولنا فانصرنا على القوم الكافرين نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والأهل والأموال والولد اللهم واجعل فيه زيادة للإسلام والدين آمين. allahuma wajal allahuma wajal fiihi kulla xayrin waxfadna wa iyaahum min sharri kulli amiin yàlla na yàlla nangu amiin